jàpp rek ni euh, ci ponk yi ngeen xam ne jot ngeen ko yëkkati ci fan yu weesu bokkoon na ci lépp lu jëm ci assemblée générale élective am na ay manquement yoo xam ne jot ngeen ko noté par rapport ak euh, maître Babacar Ndiaye bi nga xam ne tey moom mooy le président de cette fédération pour yéen il n'est pas légitime pourquoi. Euh, bon xam nga pour pour rek euh, jéem a rassurer sax nit ñi ak moom Babacar ci boppam. Mm. que ni ce n'est pas du tout personnel. mosuñoo personnaliser benn combat mosuñoo personnaliser benn bëgg-bëgg wala ñu am kenn ku ñu bañ rek par rapport ak dara lu ñu bëgg lu mel ni ay puusal ñu toog la nekkuñu si ci boobu logique dañu nekk si benn logique moom mooy que moom mooy bi sénégalais yëpp am tey jii bu ñu taxawee seetlu ñëpp taxaw seetlu nga dinañ xam ne li daan gañe bu gañeetul parce que mm. dafa am loo loo xam ne dafa am loo xam ne mësta am wala dañu ko jëm jëmale fenn foo xam ne foofu baaxul. lu euh, li tax gañeetul nag euh, du sax manque de joueurs yi parce que am nañ ay joueurs yu baax yoo xam ne ñu ngi ci àddina bi tey di di fa di fa def lu mu lu rek mucc ayib ay nit yoo xam ne ñu ngi Europe ñu ngi États-Unis ñu ngi fépp. Euh, gis nañ itam sax nag état mu ngi ci góorgóorlu parce que ñun d'habitude biñ ci musaana nekk ñun. li xale yi am tey ñun ñun amuñu ko woon te nag terewul woon nga dañ doon gagné mais tam dañ doon seetlu ni suñu ginnaaw dafa daan am ay dirigeants. Mm-hmm. yu baax yoo xam ne tey jii am nañ ci ay ñoom euh, ay Sey Moro amoon nañ ci ay ñoom bu Diagne ay ay nit yoo xam ne boo tuddee seen tur ci àddina sax ñëpp a leen di jox cër si rek façon bu management bu ñuy manager. Baba Tandian. Euh, Baba Tandian tam euh, bon xam nga moom euh, lu coow li mën a am moom mooy Tandian moom deful sax benn mandat ci biir fédération bi ça que ni li gars yi quatre ans lañ lay jox mais moom trois ans la rek jot a def rek li xew daal di xew donc nag nga gis ni tey jii bu ñu waxee nii dañu am problème ak Babacar moom mooy que ni il peut pas être candidat Babacar parce que li tax mënta nekk candidat dafa yomb parce que nag kayit yi nga xam ne tey jii moom mii la yore moom que di ci wu bokkul ak kayit yi nga xam ne ci yooyu la war a sukkandiku àtte ci boppam dafa xam ne bu doon ci kayit yi moom mooy texte yi nga xam ne moom mooy régir fédération yi hmm. euh, daf ci am waaw loolu moom maanaam da dindi na ko parce que ci texte yooyu nag la sukkandiku woon sax ba dugg ci fédération ñaata la dañoo waxoon mandat bi ko limité woon ñaata euh, ñaari mandat te boobu noonu moom moo nekkoon ci cadre de concertation bi ñun ñëpp ñu bokkoon fi nekk bi ñu fi jëlee Tandian ci nag dañu fi teg comité de normalisation bi. disposition 2015. léegi nag ñun nag maanaam bi ñu ñëwee ànd ci ak moom que jiital ko ci cadre de concertation boobu noonu dafa amoon ay point revendicatifs yoo xam ne dañu ko indaale woon si table de négociation donc nag limitation des mandats bi ci la bokkoon. bi mu tuggee nag toog mu ñam mu neex mu ñamaat mu neex. Hmm, mu a ko ci ko mu ne dafay ñamati. que hmm. ñu ne ko nag dootoo ñamaat. parce que kayit yi na la nga def ko. mais su fekkee ne euh, pardonnez-moi mais su fekkee ne moom yéen seetaan ngeen ba mu ba mu dindi clause yi nga xamante ni moom moo encadré woon ni deux mandats la ça veut que yéen euh, yéen àndoon ngeen ci. waaw xam nga gis nga. crime n'est jamais parfait xam nga fii Sénégal la te ñëpp xam nañ ñu muy doxee gis nga nit ki bu la abalee ay bëtam fu ko neex ngay xool. dafa am yenn pratique yoo xam ne am na ci ñenn waxuma ñëpp nag am na ci ay président de club yoo xam ne vraiment ñu ngi assumer seeni rôle pleinement ñu ngi garder seeni dignité ba léegi ñu ngi sauvegarder intérêt général bi lu weesu seen seen intérêt boobu Babacar tey képp ku taxaw wax ni da nga ànd ak jëmmam ji du lu mu def lu nit war a mën a euh, daal di euh, euh, xayma mm-hmm. jàpp ni lii nii kat gain la pour rek basket parce que na sport quoi qu'on puisse ci ay compétence am dañu koy jéem a analyser wala saytu ko ci li nga xam ne moom mooy ay résultats mën nañu la jox ñaari mandat ba léegi mënoo fi gagné benn coupe d'Afrique garçon yaa ngi nii qualifié wuñu championnat du monde fii yaa ngi nii demuñu championnat du monde U16 bi ñu joué fii sax keroog rek yàggul dara ak Mali sax ñun sax maanaam de euh, participer wu dañu bëgg bu fekkee sax lenn loolu loo looloo xam ne war nañ ko ko war a mën a wóoloo wala ànd ak moom mu ànd ak résultat bu palpable boo xam ne par rapport à son bilan nga xam ne dañ koy teg daal di koy defal donc nag nga gis ne soit tu es contre de ce qui se passe. Mhm. ou bien tu complice de ce qui est en train de se passer. ñaari mbir rek loolu.